asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah mardi 3 décembre 2019 ñu ñëw ak yéen ci yëglikaay moo xam sunu làmb la record la tribune leewtoo point net ba ci leewtoo tv fu nekk rek tey bu ñu xëyee fekk nañ fa ay xibaaru làmb bu fekkente ni yëglikaay bi di sunu làmb la moom que xëy toog fa ngar daajug fa di wax solob kabam wax bay joxoñ moo di Balla gay numéro 2 le lion de Guédiawaye ancien roi des arènes Balla nag la muy leeral nee na li leer ba leer daal na leer nañ diggante ma ki nga xam ne nii day moom moo di ki nga xam ne moo di Boy Niang kenn doxu ko tey suba waxi noppi Balla daal nee loolu moom daa bëgg mu leer nañ ci bopp ñëpp na ñëpp xam ne daal diggante ma ki nga xam ne nii day moo di booy Niang bu dégul benn promoteur nekku ci di ko dox wala mu di ko ko wax Balla nag nee na moom nekku fi tamit naan day réclamer ay cent cinquante millions ak loolu wax jooju Balla ne na dafa war a dak ndax nag ku nekk xam na ne xam nga lu jaadu ak lu jaaduwul moom Balla Gaye numéro 2 moo xëy tey di wax lu mel ni ki noonu nee na tamit leneen li des te nit ñi war koo xam Balla nee na làmb ji mayante sens amu fi ku nekk la nga yelloo yaay liggéey ba jot ci waaye kenn nekku fi di may kenn ay sens noonu moom nee na moom loolu moom Balla Gaye numéro 2 na leer nañ nee na tamit li leer ba leer daal moom Balla moom nekku fi tey naan maye ay sens rek ay ñàkk maye ay sens mu mel ni ki daal fi mu nekk nii prix yaag jàppal bàyyil ja Balla moom daa mel ni loolu moom daa bëgg caa génne boppam parce que moom daal jàpp na ne loolu moom demewut noonu nga xam ne nii noonu lañu koy waxe wala ñu jàppe ko nu mel ni ki noonu Balla gay numéro 2 daal tey moo xëy ngar daajoo li nga xam ne nii moo di yëglikaay bii di sunu lamb di fa wax ay dëggam keneen koo xam ne tamit ñu ngi ko fekk ci yëglikaay bii di record moom Gaston Mbengue démb mu nga foon moom nag la mu xëy xamle daal nee na li leer ba leer de nee na mbër yi ñoo xam kum ci mën a doon nee na kenn ci ñoom ëpp ko kenn gënu ko ci sécuriser maanaam ci côté mystique ëpp ko ci mystique Gaston na loolu amut ci mu nga waxee wax jooju nag fa nga xam ne moo di ca record keneen xam ne moom dañ ko koy fekk fa nga xam ni nii moo di ca la tribune muy Gris Bordeaux yëglikaay bi ne moom day ndax manta daje ak loo Lo yëglikaay bi di reko wala boog laa tribune moo xëy ñëw di wax loolu écrém ba nag moom soo bëggee dégg-dëgg li leer ba leer daal décembre de feu la ñu nar a jëm yëglikaay bi di sunu làmb xëy ñëw dinu ko wax ndax nag yëglikaay bi ne nag boo xoolee mois de décembre bi moom nar naa saf sàpp ci biir écurie Fass ndax ki nga xam ne moo di Tafa Gueye ci lay jàmmarloog Abou bu Lamsar Serigne Ndiaye numéro 2 fas yéenee jàmmarloog Libidor bu itam di rakki Lac Rose nar ci jàkkaarloo ak ki nga xam ne moo di Jackson Junior mu mel ni ki daal kon écurie Fass bi mu nekk nii day yëglikaay bi na commencé waat nañ nag seen ay entraînement groupe ba ñoom ñëpp ngay ñëw di entraîner ba ca Papa Sow sax yëglikaay bi xam nañu day mu ngay ñëw ca li nga xam ne nii moom moo di entraînement ya ka ay entraînement feeñ moom ba di ko fay moo di Mama Lamine yëglikaay bi ne li leer ba leer day jàpp leen juróomi ndam a ngi mu di ko teglante mu mel ni ki nag fi mu nekk nii day ci yoonu roi li yëglikaay bi ne ca la tegub tànkam aw ca moom Mama Lamine bu lamsaar nag mu ngay wan boppam ña nga xam ne nii de ñoom lay dajeel wala ña ko làmb booleel mu ngi leen di wan daal la mu nar ak na mu mane yëglikaay bi di sunu làmb moo xëy ñëw dinu wax lu mel ni ki noonu leneen loo xam ne tamit yëglikaay bi ñëw na ci muy combat buñ taxawal ka ko ka ko def nag moo di Mor Mbay ngéwél gi production mu mel ni ki nag ki nga xam ne nii day moom moo di armée bu ngéwél ak ki nga xam ne nii mooy booy pir yëglikaay bi na Mor xam ne ni moom roi la fi mu nekk nii de jàppal la yëglikaay bi di record ñu xëy wax ñu nu ko wala boog muy roi wu Joal muy ki nga xam ne moo di pakala ndax lañ fa tegoon bërki démb tey moo ko jël moom pakala ci lit simple bi lu mel ni ki pakala fi mu nekk nii moom mu ngay a baax te far forfait muy Jacob la ko ko yóbbee nag moo di ab accident bu mu def jële ca koo xam ne nii moom mu nga ca feebaram ñu koy faj yóbbu ko ba Tunisie wan ñu ay photom muy Jules Baldé Senior mu mel ni ki nag moom fi mu nekk nii dénk nañ ko ña xam ne nii day ñoo ñoo a saytu wér gi yaramam ca fa nga xam ne mooy ca mu mel ni ki nag Arona Dia ak ki nga xam ne moo di Pape Gorgui Ndong moom jàpp nañ ca mbir ma bu baax a baax a baax yëglikaay ñoo xëy ñëw dina ko wax leneen loo xam ne tamit ci Leewtoo point net lañ koy fekk muy MMA bi nga xam ne le 14 décembre léegi ca lay amee fa muy amee nag yëglikaay ba nee mise de des civilisations africaines fa la ñu koy defee ki nga xam ne nag moo di rëg-rëg moo cay jàmmarloog ki nga xam ne moo di Sofiane waaye ki nga xam ne moo tamit dañ fay jàmmaarlu mu mel ni ki kon MMA ba daal nar naa am ka nga xam ne nag doon nañ ko ca xaar te mujj ca bokk moo di Bombardier ku ne xam ne ne nag moom la ko ko yóbbe mooy ñàkk a entraîné ndax nag magam ja xam ne moo wéra di woon te far génn àddina mu mel ni ki kon MMA ba fi mu nekk ni moom itam yëngu na bu baax a baax waaye leen loo xam ne daa yëngu yëngal àddina bi mooy ballon door ba doon joxi démb ca Europe ballon door ba daal la ca am ñëpp gis nañ ko Sadio Mané la ñu beddi ne ko ndax dangaa ñuul ñuul nga li am ba des mooy Sadio Mané fi mu nekk nii koy football moo la daq dàq football ndax Messi ma ñu ko jox Sadio ko éliminé ci demi-finale Ligue des Champions finalu gagné coupe ba yóbbul ko waa Liverpool ñoom nag ñu ne yee Messi moo jël ballon d'or bi waaye man Habib Beye man abi Beye laay ñaanal yàlla na nga gudd fan te wér ndax nag ku la bañ nga bañ ko waaye jël yëfi waay jox ko jàmbur ndax ne daa xong wala dafa mel ni nun loolu newunut ay africain la ñuy doon tey suba moom la ñuy doon saajo Mané it la ñu am nag ndax daa wane boppam mbokk waa Leewtoo TV ñu lay nuyu di leen gërëm leen sant Babacar ngeen àndoon si bi ñu ànd ak si jàngatu arène maa ngi lay nuyu di la laaj nagam démb reer nga man ba suur maa ngi lay nuyu di nuyu internet yëpp reer naa ba regg de ndey kumba ndax xam la moo tax ma reer ba regg euh, man moom dafa am li nga xam ne nii su amee dina ma metti du metti parce que euh, am na loo xam ne moom nit ñëpp tegal ci seen bopp seen bët parce que tamit làmb la ñuy def nag mais nag dafa am loo xam ne dafa dal ci suñu kaw te loolu defe naa ku ne war na la metti yaakaar naa Sadio Mané fañ ko ne fa nga toog ci wàllu ballon d'or bi ku ne xam ne ne foofu du place kuy wax rek te yàlla tax di suivre sport parce que ñun dañuy suivre football man li ñu xamul mooy dañu foog ne làmb laa xam man ni may suivre football du ma ne sax suivre làmb xam naa làmb yorgan bi nga xam ne nii tey moo taxaw atte ko ñàkkal te moom li mu am tey ci Ligue des Champions jël ko ci carrière am Sadio Mané ko ko jox te li tax mooy ba muy nekk Dortmund lay laaj ñu jëndal ko Sadio maane defuñu ko muy dem Liverpool wax waa Liverpool jëndal ko Sadio maane ñu jëlee ko Southampton indil ko ko Liverpool mu yóbbu ko ñaari final Ligue des Champions jox ko benn ñàkk benn kon defe naa moom waroon na ko fay leneen lu dul naan da koy teg ci xaw mu Van Dijk la xaw ma nu mu tudd koo xam ne yow Pape Abdou sax du sa morom ci wàllum défenseur waxatuma laa Kalidou Koulibaly mais nag c'est des blancs loolu est-ce que Conte duñ leen bàyyil ñu jël nekk ballon kii d'or bi ba bàyyi ko ak ñoom africain yi. diggu li ma la wax man daal sunu ballon door africain bii nañ ci yem te bàyyi leen ak seen bosu Europe ñu koy joxante ci seen biir comme ñoom mbirum sàcc la ñu nekk ndax lii saaru saaru sàcc la di Messi lan la def lu mu def bañ koy jox ballon d'or yow koo xam ne penalty boo teg final sa dëkk rate ko pour sa dëkk joxoo sa dëkk dara Sadio Mané benn final benn final la demagu ci Sénégal ñàkk ko d'accord mais defagul ñaar ñett. mais nag mu ngi noonu. boobu ba léegi sax mu créé Ballon d'Or ba léegi depuis plus de 70 ans benn africain moo ko jël muy George Weah. kese mel num Weah kese est ce que loolu c'est c'est te Yaya Touré jaar fi Samuel Eto'o jaar fi Didier Drogba jaar fi ak yeneen ngandu joueur ay ñoom El Hadji Ousseynou Diouf mais ñoom la rek. comme li ñu wax rek une fois n'est pas coutume actualité bi mooy football mais tamit lu delluwaat suñu làmb ji amul am na cooga mais amul yenn tricherie yi comme ni ñu koy waxee ni ñëw suñu laam suñu laam nag dañoo xëy dalal ki nga xam ne mooy Balla Gaye Balla Gaye nag xëy na di leeral nee na daal benn promoteur doxul combat euh, moom ak Boy Niang te ne moom nee comme nit ñi li ñuy wax rek musul laaj kenn 150 millions Babacar waaw Balla moom daa mel ni moom wax ja moom xëy na leeral moom tamit parce que fan yi xam wax ji daa bëri que ni mbër yu mag yi 150 yu mag yi nangam Balla Boy am na loolu nag olof a ko wax yaa ngi dégg lu ne fàng ne dajji de su ko jeex moom Balla ci boppam xëy na wax xam le na ni diggante mag booy Niang nit doxu ko tey suba waxi noppi te te tamit kenn ñëwut ci moom mu laaj la cent 150 millions loolu nag defe naa wax ju leer nañ la da moo ne day dama ne moo ko gën a wóor Balla nag moo ne moo ne dama ne loolu wax ju leer nañ la Euh, Babacar journal su lamb tam ñi nga xamal ne écurie Fass ñi nga xam ne ñoo am combat ku si mel ni Pam Ndoy Tafa Gueye de Serigne Ndiaye ki nga xam ne mooy Papa Sow ne ñu reprendre nañu entraînement bi waa loolu de mooy le mooy li leen war defe naan ku lekk avance te duppam la olof wax ñoo jël avance yi jàmbur kon defe naa entraîné doo nga leen war ndax nag lamb moom bu la ci genn na dara mayewu ci ndam lu dul entraînement moo ci li ci jëkk leneen lu ciy doog a ñëw nag complété la waaye entraînement bi moom mooy priorité bi waaw nit la dañ naan mooy xol bi bu ci nekkatul newat newatul mais nag mbër moom bu dee yaa ngi entraîné mën nga am yaakaar am am ndam dañu am ñetti combat moo xam Pape Ndoye moo xam Tafa Guèye 2 moo xam ki nga xam ne nii moom mooy Serigne Ndiaye ak Papa Sow ñëpp ah loolu nag mooy mooy mooy écrit écrit moom di am ay combat daf ciy baax loolu mooy li gën. Babacar nag jegee fi nga xam ne mooy suñu laam dañuy dem si record record nag dañoo defoon interview démb tey na koy eggali ki nga xam ne mooy Gaston mooy moom daal dafa mel ni dafay. Euh, jaar tontu mbëri nee moom moo gën a saf-saf mbëri mystiquement mbëri yóbbu luñ ko dara waaw <laughs> suñu papa Gaston ñu koy nuyuwaat di ko ziar di ko ñaanal jàmm xam nga moom ku ko xam rek xam ko ci franc parler moom li mu bëgg a wax da koy wax moom du làq-làq ay wax waaw waaw te loolu tamit soxla nañ ko ci nit nit nit ki moom ñu lay dàq fu sori war nga gat xam kii fii la toll waaw ah, comme nag moom moo gën a mystique bëri ah ñu ngi koy ñaanal daal ñun mu gudd fan te di ko ñaanal bépp doomaadama parce que suñu papa la suñu nijaay la itam yaakaar naa réew mi di Sénégal contribuer na ci développement bi bu baax a baax ndax li tax contribuer na ci am na tey ay mbër yoo xam ne nii yaakaar naa ne dawal nañ 4-4 tabax ay immeuble moom seq na ak ñoom ay contrat ba tàyyi fay leen xaalis kon defe naa loolu moom contribution la kon daal yàlla na ko yàlla may fan wu gudd defal ko wér-gu-yaram mu gën fa yàgg waaye defal ko bépp doomu aadama barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Babacar suñu jógee nag euh, fi nga xam ne mooy record nañuy dem fi nga xam ne mooy tribune tribune moom nañoo euh, def benn laaj nee na Gris Bordeaux gis nañ ko muy entraîné entraîné yu metti est que nekkul di waajal combat revanche am moom ak ki nga xam ni mooy Modou Lô ah, waaw loo ci mën a dégg daal entraîné moom li ma la sànq la rek bu dee bàyyeegul làmb moom Gris Bordeaux te bëgg naa bëreewaat faw ma entraîné ji ndax mbir mi amul secret de entraînement la moo xam mu war a bëriwaat ak Modou lu moo xam mook Balla Gaye moo xam mook Bombardier ndax moom bari nay revanche yu mu war a mën a bëri Modou Lô daan na ko yaa ngi dégg kii di Balla Gaye daan na ko daan na Bombardier mook Tapha Tine ñu ngi fi kon yaakaar naa mook Ama Baldé itam mu ngi fi mook Boy Niang mu ngi fi kon defe naa ne entraîné dong mooy lim mu war a def moom pour moom. Babacar nag suñu jógee nag si euh, fi nga xam ni mooy tribune ñu dem si Leewtoo point net Leewtoo point net ñi nga xamal ni combat bi nga xam ni mooy combat MMA yi war a am le 14 décembre léegi xam nañ nag euh, adversaire yi mbër yi ñaari. Euh, ñi nga xam ne na koo disputé fii ci Sénégal muy euh, kenn ki muy muy bëreek rëg-rëg ñu tudd Sofiane euh, ba keneen ki Moussa Togolaal tudd kooku nag duma kooku wit bin maan la moomee bëree ak ki nga xam ne mooy maraat Faye si euh, musée de la civilisation africaine musée de la civilisation africaine ca Dakar ah waaw loolu moom du ay rendez-vous yu am solo ñun nag liñ ci mën mooy rek ñi nga xam ne suñuy doomi réew lañ tey jongante MMA boobu dañ leen di ñaanal yàlla may leen ndam muy rëg-rëg muy Moussa Togola moom bopp sa bopp la ku ne bokkul la am te sàmm ko ndax nag la père Max Mbargane suñu ma papa ja doon wax rek benn bañ ci gémmiñ moom day fonk te waaw comme ñun nii lañu ay ay nit ñu ñuul lañu nun nan man de rëg-rëg laa faral ci MMA ji mook Moussa Togola moom mbir yi léegi moom bopp sa bopp la kenn talatul kenn ku ne la nga moom sax duñ la ko jox ndax contrôle sab sab der ngun mbokk yooyu mbokk yi ci kàddu yooyu leen di tàggoo di leen jox dig daje suba incha allah mais balaa boobu muy nuyu sama yaay mère Sow sama doom Mohamed Diouf di nuyu ki nga xam ni mooy Astan ne déjà vraiment chéri Khadija Diallo depuis unité 26 di nuyu samay doom euh, Maam Diarra Penda Rokhaya Moussa ak ki nga xam ni mooy Bébé Fallou di nuyu euh, ki nga xam ne mooy Mbaye Seye depuis Ouest Foire di nuyu. Abdou Gueye depuis États-Unis du pape ki nga xam ni mooy Siteu di nuyu daal waa Parcelles Assainies unité 26 bàyyi ma kenn nuy aussi Aïcha Faye madame Niang jox na ma sa yóbbante Babacar kon boog jox naa la ko nee naa mi ngi lay nuyu namm na la. waaw ne ko man maa ko gën a nam waaye lam ma waxoon a tax rek mu gëj maa dégg ndax man nag séeréer laa te joom laa sant Aïssa ma koy nuy bu baax a baax Aïssa Drago di nuyu képp ki nga xam ne yaa ngi ñu suivre ci Leewtoo TV rek. waaye du sama international yi muy Saliou Ciss depuis France maa ngi koy nuyu di nuyu tamit Youssou Ndoye moom tamit mu di leen nuyu bu baax a a baax leen féliciter tamit parce que lu tax ma leen di féliciter tey bu ñu demee bañ naan ba ñuy xeex sénégalais ci ballon d'or boo xam ne ñëpp xam nañ moo ko war a jël ça na kon nag a takk suñu ndig gën a liggéey gën a gën a bokk ndey gën a bokk baay et puis te a bëggante loolu dafa am solo yéeneente jàmm nuyu ñëpp ñi nga xam ne ñuy suivre ku mel ni ko fàtte Demba Ciss maa ngi koy nuyu ñëpp ñi nga xam ne daal ñu ngi ñuy suivre rawatina sama dëkk ba nag fa nga xam ne fa laa fekk baax baax fekk ma fa muy ak yaay mag ngi leen nuy nuyu baax a baax a baax di nuyu sama si sama aaw teneen di ko ñaanal jàmm baax non ñaareel bi moom ñëwagul waaye bëgg naa ko nag yàgg moom soxna su baax laa koy ñaanal soxna su gën ci moom ayda itam moo ko ñaanal yàlla defal ko mu am borom kër bu baax si moom man nag ndax ayda yaakaar naa neex naa yor yow moom wutal naa la ba pare